jëf mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD TV lu waaye doon jaay tey mu lamb Balla Gaye Boy Niang Serigne Cissé mu Serigne Babacar Sy nee na ma ci ndaali laa gisee jëll bi gis naa jëll boo xamante ni tey lu ma ne wax naa la ko wala wan na ma ko lu dul ndaali ndaali rek laa jàkkaar loolu xam kan mooy daan dafa yëf yaa ngi nii may jàkkaarloog alaaj dégg mantu seet nañu noppi ñu ne woon làmb ji du am nañu noppi. ñu ne woon làmb ji du am nañu noppi gis naa mbir yi mbir yaa ngi nii. sëñ Cissé euh, bul dugg foofu. alaaji dégg mbir yaa bu fa dugg léegi xam nga xam nga lu tax xam la moo tax. alaaji danañ fa dugg. ba jamonoy baax mag ña bañ daan dem xare ci ndaaye lañ daan tiim di xam li ñuy xam. sëñ li nga ma wax dégg naa ko. xam-xam di dox mag yi ci ndaa yi lañ daan tiim xam xare ba dañ koy gañe wala dañ ko duñ ko gañe teg maa dimbali téyel ma lii ba ci kanam alaaj dégg dinaa fa dugg ak yow xam-xam sëñ Cissé euh, dinaa dugg foofu dinañ xam naa loolu dafa am wax ju dafa am wax ju nit wax ñii caaxaane xam-xam dama di xam-xam danañ fa dugg danañ dugg foofu barki sëñ Babacar si danañ fa dugg mbokk yi tey danañ waxtaanee njariñ danañ waxtaanee ñaan yàlla danañ waxtaanee li nga xamante ni moom mooy lasraar combat bi sëñ Cissé wax na ci wax joo xamante ni mbokk yi ndekete làmb dafa am ñu ko moom sëñ Cissé bokk na ci mbër yi fii sëriñ si fi njëkk a ngemb. du am kan moo noonu combat bi dina am. yaa ko waxoon. danaa ko dagg wan leen ko da ngeen da dem ci site ba Serigne Cissé lu fi seen ngeen fekk fa ma leen waxee ne combat bi kenn mënu tee mu am. dana am gars yi ne du am. ñu taxaw ne Serigne Cissé la ñuy contesté moom la ñuy fenloo. man xam-xamu buur ya la mag ñi daan wàllee ji di daan moom laa yore. doo gis benn sëriñ bu tiim ndaale la ci ndaali laa gis nangam. tey lu leer naa leen ne juróom-ñaari ndaa laa yor tojoon naa fi benn bi te nañ feex ba buñ ma yëngal ba ma fi tojaat ndaa man ci ndaa yi gisee ci ndaay yi laay falee combat maa ko gis ci ndaali na la combat bi day am force mais sëñ bi jël bi nga ma wax sànq maa ko gis ci ndaali léegi nag loolu danañ ci dugg nag waaye dama laa ko ñaan ngir jëmmi sëñ Tuubaa buñ ma man dama di jëmmi xam-xam di jëmmi mag ña du ma waxee bakkan lu ma la wax dëgg la kon bu ma kenn yëngal ah, bu ma genn gune yëngal may dégg may làmb may nàngam yow foo toj foo toj foo toj allahu fan nga toj la ilaha illallah bisi man sëriñ laa seetaan mu toog ci internet bi daan ne cinq jours moom lay liggéey li muy liggéey gas ko suul nopp ci nit jàpp ko 45 bëriwul. 45 suur li mboq war a def ci kaw suuf ñor nga ne moom ngay noobee nit mantu noob. boo mënoon a noob noob gi ma lay defal bu ma ko defee dëgg bu yàggee ba yàgg ñetti fan semaine ba nga am sa jabar. ñetti fan laa lay jox rendez bu suuree génnut une semaine. yow nga ne 45 suur si ngay noob manoo noob. xaajoo mën a noob. boo mënee nopp li ma la wax nii ñetti fan la bu yàggee ba yàgg balaa semaine ba jeex ka nga doon tekkulu da nga ko daan téye niib te dara du ko dindi maa la wax lii man Serigne Cissé mu sëñ Babacar am na mbër mu mag moo xamante nii da toog seetaan ko ci tele bi ñoo ko doon seetaanandoo mu dugg ci stade bi ànd ak sëriñam nga ne ma kii ñi mu àndal mënuñ man la lu tax nga ne ma xoolal fa mu teg cumbukaay la cumbukaay la baaxul cumbukaay gars yi dañu wax ne daa war a boot ndakaaru dégg bu ma yëngal ndax bokkuma saraxe làmbi jàmbur. ndakaaru boo ko. si bul dugg foofu nag xam la moo tax damay bañ booy Niang ak Balla Gaye ñu njëkkante kenn ku nekk sa cumbukaay fa ngay toog nëtëral ci côté boobu dinaa la fa laaj bu fa dugg léegi. jéem nga cumbukaay. Uh-huh. war nga ànd ak jant bi te buñ koy teg mboofitum ginaar war nga ko fexe am fu ginaar boof. ñiy wax ci làmb xamuñu làmbu. ñeneen làmb xamuñu làmb xamuñu làmb ah? dara jëy Serigne Babacar xamuñu làmb dem naa ba sama wilaaya ci wàllu yàlla moo ma mayeetul yenn yi moo mayeetul yenn yi yenn yi moo ko mayeetul maa wax lii moo ma mayeetul yenn yi piir ah. yem mag ña daan demee ca xare ya sama wàllu yàlla ma mayeetul yenn gàllaaj yi piir man mbër kenn rek laa ci doon ngembu muy Modou Lo roi des arènes ngembatuma mbër doomi góor loo la si ngembatuma mbër menn mbër laa daan ngembata bi ma ko ngembee dégg na daali muy roi de saret bi ma ci mujj toog maag biram jigéen dama ne ko kerek bu Modou doonee roi ma génn ci làmbu samay xarit lañu waaye ngembatuma mbër ndax sama diina mayatul ma ko walaay ma ko de kon ñiy wax ci làmb xamuñu làmb bi Serigne Cissé ñoom ñëpp Serigne Cissé leen dalal ñeem ñëpp Serigne Cissé leen dalal ci géewu làmb barki Seydi Aboubacar si maa leen dalal ci ëttu làmb ëttu xam-xamu làmb xam nga jiital mbër topp ci ginnaaw muy wàll làmb nga topp ci ginnaawam di ko fasal di ko fasal muy daan ba nag ya fa ne woon lépp jël ko kii def na ko man baa xam ne Serigne Cissé eh, bi ma koy njëkk xam man ci takk laa ko xamee woon toog di takk maanaam boobu match mooy am match Euh, jour day teg bal bi war koo dóor sëñ Cissé naawal penalty ba. dama lay wax li ma lay wax nii. yàlla laa jël seede ci li may wax du mbindee fii. jaami yàlla yi. li ma lay wax ànd ak mbër ngeen wàll ji làmb. ñu ne teg nañ tonu ciment. nga nekk ci ginnaaw mbër mi di ko fasal bam daan ñëpp yëkkati tonu ciment ba yóbbu. da kon. mbiri làmb sama diina sama wàllu diina mm-hmm. moo ma mayeetul yenn gàllaaj yi ma koy utiliser waaye xeetu gàllaaj bu ne xeetu xam-xam bu ne mm-hmm. xeetu xam-xam bu ne sëriñ Siise peeg na ko ci jamonoom waaye li tax mënatuma ko jëfandikoo ni mu demee la ndax sama diina mm-hmm. nit boo demee ba ba tarixa bi nga am ci cër doon ci mu xadam am na yoo xam ne waratoo koo jëfandikoo waaye man maay làmb làmb bu doon nelaw ba sëriñ Siise jog taxaw làmb day daal di yeewu ne féreet nekki moom làmb ñëw na. Eh. billaay yi la si laa ilaa ilaa allah akbar man man man mbër mu ma tëkku borom ña ko moom tiit. man nekk naa fii ci combat nit am lu mu bëgg a jëflanteeg man ci combat ba kerek ba ma ca addoo ay bokkam dañuy wax ma ne ku ki xam le jinne ci réew mi moo ma xamal lan mooy jinne qul wa yaa ilaa anoy sama nafaru minal jinni fa qaala inna samina qur'aanu ajaban yahdi ila rusdi fa amana bi walam nusrika bi rabbina ahadan wa inna wa taala jaddu rabbina maa ittaxasa saahibatan wala waladan wa inna wa kaana yaqulu safihuna ala laahi satatan wa inna sanana alam taqul linsu wal jinnu na ma jinne ma ne ko kii xam le jinne moo ma xamal lan mooy jinne mu ne ma da nga xam ne kii ngay dajeeg ay jinne la yor ma ne ko bu bis baa nga xam ne jinne borom kuna man borom euh, jinne man borom kun laa duma borom kënu yaa ngi may dégg mhm. kon làmb ji bi gars yi da ngal ngali nangam nangam li ma leen di wax ku bëgg a xam li sëriñ si sa wax dangay dem foo ma la wax nga seeti ko fa mhm. da fa fekk wax ja mhm. ma ne leen làmb ji day am amul kii a tëdd kii a nangam day am day kon seetaan loolu te ñëwaat tuddee ne man ngaa gis te manoo gis baaxul gis nga combat booy Niang Balla Gaye 2 waxoon naa ne moytu leen yii le premier janvier incha allah bu soobee yàlla. 2023. 2023 Balla Gaye ak booy Niang kii dana taxawee nële kii taxawee ne ñuy léwtoo arbitre bi dana dox seen diggante incha allah. kon le premier janvier laa mu dina am. vidéo bi période bi nga koy def. Mhm. fekk na sëriñ si yëpp génn ne làmb ji du am. mais xam lu ma jaaxal. liiru Balla Gaye la àndal te sa xarit la. Pape Sarr Boy Niang la àndal te sa xarit la. kon nu ma war a def est-ce que doon nëttu ci làmb. kon nu ma war a def. nan laa war a def li tax ma nelaw ci làmb ji. ndax mbër yëpp dañoo daw ñëw songu si ma sañatuma ñaanal kenn. allahu akbar. Reug Reug bi mu war a moo moo sàccees ñu war a bëree. Xaadim mm. Njaay daf may ñaan chaque jour sëñ Cissé neutre. neutre. ndax liiru. Sa Thiès rek la waaw def na déclaration na neutral xam na ma ndax man loolu moo tax mënatuma ñaan ci làmbu waaye làmbu pire nga bëgg koo dégg ñu sàjj nga xam ne gàllaaj piir ñëw na ci làmbu ji hmm. sëriñ si mu sëriñ Babacar. lii deru golo la wala deru lii deru golo la alaaj dégg hmm. ndombali deru golo la. lu muy du muus deru golo la hmm. lii. pour nit ñi nga xam ne bu fekkee ne da nga bëgg sa ba yéeg nga yëkkati ko amee sa wuy yéem ñëpp ni golo di mel ci kaw lay golo boo ne ko piip mu ne nangam ci kaw taxaw di tiim boo bëggee yëkkati ko genn gaw kottu la amee boo ko takkee raw say morom ba ilaa yomit ba si da ngay nekk ca kaw te kenn du la téye sëriñ Cissé mu sëñ kër si loo ma sa wax li nga ma wax sànq ci décesseur moo ma ci dàqal mm-hmm. da nga ne ma. Mhm. ki feebar ba hôpital ne du ko jëlati du ko recevoir ti mhm. ki nga xamante ne daa feebar ba toog ci puus puus. Mhm. ki ñu liggéey ba mu tëdd ci ab lal di ñàq wala mu taab. nga ne bu ñëwee ma faj ko ba mu wér ba mu xam ne bàcc na man bëti neen. alaaj dégg ah. lu waay mënu neexut. alaaj dégg dama def émission bu mujj. na la sama cuuraay bi mbooleem ku ma ci suur. am lu ma ci coppati lu tuuti mm-hmm. ne la ku ma ci suur buñ ne la dëmma la jàpp wala rab wala dañ la liggéey wala saytaane bu ma la ko suuree nga doxee say soxla am ku ko dégg tey kilifa ci dëkk bi uh-huh. dawal si ma mm-hmm. na ma sëriñ Cissé dem naa fépp amul sëriñ bu ma taxawut fii ma ne lii ma la jox nag du yëfu sëriñ Cissé yëfu làkkat piir laa lay jox yëfu làkkat piir boo ko suuroo fii fii ngay jógee lu nekkoon ci yow fii nga toog lay génnee li ko koy suuroo dana sol yére wala sol yére. ndax am na doo sol yére am na boobu joxoon. doo sol yére. gàllaaj goo takkoon te nga bëgg gàllaaj ga moom tooy tekki ko ndax lu fekk ci yow da koy dindi. kon lii vidange la. da dindi mu def ñu bi mu ñëw doy waar lool bopp bi di kaw kaw yi mu sonn lool ma ne ko indi leen ko mu indi. Mhm. ma ne soxna si indil ma ànd mu indi. Mhm. ma def ci ne ko suur ba mu ko suuroo dafa jog doxi soxlaam. alaaj dégg dama mën a ñaan. Ah. man Serigne Cissé mu sëñ Babacar. allahu akbar dama mën a ñaan ndax dama am sañ-sañ ba am yëg-yëg ba am maxaama ba am cër ba am daraja ja ndax borom daara ji sama waa ji. wallaay Serigne Mansour ma ne fu réew mi jaaxlee. Mhm. yow Serigne Cissé mu sëñ Babacar yaay bokk ca ñay dalal xel ya. ku jaaxle ci réew mi dina la woo. Mhm. bu la woowee réew mi réew mi gisoo Adji Sarr. bi coow li ne kur kerek bi ma bëggee takk sëy bi la audio yu commencé génn. kenn ku ne di tiit ne Serigne Cissé bu takkee sëy bi. dana am lu xew. audio yi commencé génn ku ne naan bii ku ne naan bële man Serigne Cissé mu Serigne Babacar Sy dama mën a ñaan xam ni ñuy ñaanee te ñaan heure uh-huh. bismillah sëñ Cissé mm. yonent bi euh, ba Jibril ñëwee ne ko iqra mm-hmm. boobu yaakaar naa ki la xam ak jàng war ñëpp iqra ku ne la mm-hmm. ko mm-hmm. iqara ku la war iqara mooy jàngal yonent bay ne ko iqara xamul lu war a wax yaa ngi dégg mhm. waaye xara nam la waree am njàng ni waree ku ne kuy dox ci kaw suuf war na la mhm. ndax xam-xam sama baay daf maa waxoon ne ma mhm. kuñ war a laaj nag waru toog ferenkalaayu rek taxaw ah, ndax xam-xam jar na dox ba siin man nag siin laa dëkk maa dëkk siin ma damel diggu saalum digg saalum siin moo bëri ay déeg léegoo léegi nit nga bëgg koo dimbale fexeel doxantu heure bii ndox yi taa ci déeg yi jeexagut nga am ca boo ca amee nit ke nag buñ ko liggéey ba mu tott tottaaral mën dara ndox ma nang ca am tuuti wala suuf si déeg sa nga boole ko la nga koy liggéey jox ko ko mu sangoo ku ko liggéey ti dee suñ Cissé siin am na garabu yiir yéer si la mag ñi daan sampee buñ la bëggee samp bëgg nga yàgg fi ba ku la fel daanu ci yéer la ñuy jël samp la ci buñ bëggee nag nga dee këriñu yéer la ñuy fay ca saafara sa wala ñu liggéey ko nañ koy liggéey ku la liggéey day faatu day dee. allahu amul demal ma ñëw day dee. Ah. maa la wax lii man Serigne Cissé. Serigne Cissé siin am na garabu sump. sump mhm. day fal day folle. Mhm. day aar. ba nga kii aar nga ko. yaa ayyuha muddasiru qum. fa ansir. yaa amu musamilu. qumi layla ilaa qalilan nisfa awun qus minu qalilan. dégg nga yow mi bëgg a yëkkatiku. ba am cer am kaaraange gu mat sëkk. ci ñaari yaa ayyuha yi laa jaar. yaa ayyuha muddasiru yaa ayyuha musamilu. ma fal la ba nga mel ni bul ma ko waxati. kenn mënu ti yow dara xool ba sonn rek ba. ak lan. siin moo am garabug euh, wasosoor gu boot li nga xamante ni moom mooy siddéem gis nga garab goo gis mhm. mu am wasu sóor mhm. jaarale ko mu bootal mu ñu koy wax ray donn ray donn mhm. mooy garab gu màgg ba pare geneen garab ñëw wërat ko di ànd ak moom di màgg kooka nag boo bëggee të fa fa la ñuy jaar bëgg të wasu sóor googa yit man nga caa doxee ca xob yooya defal ci nit muy am te kenn dootu ko téye ba ilaa yomin bansi siin am na garabu new new xob ya xobi new xobi aloom xobi sidéem wërsëguru dakk rek nga bëgg ñu liggéey la cangat goo xam ne ñetti xob yi lañ ci def ndax ñetti garab yi ñoo gën a mën a meññ ci àdduna boo ko sangoo tàkk ba fawta ni dootu la téye ak lan mën nañ ne kon siin maa damel ci diggu Saalum supermarché la lépp loo soxla ci ñaan ma nga fa gis nga ñaan <laughs> dafa am fu mu neex a defee fan la neex a defee ji ci àll bi ndax garab goo soxla wala nga bëgg takk nit ci garab da nga gis garab goo ko takk. déedéet talu ma ko talu ma ko. Uh-huh. soma tool yi bàyyi la ci ne ci xob du jeex. déedéet. Uh-huh. te am naa xale yu ndaw yu mësërëgul mën na noo dëbbu. Uh-huh. sunguf piir guy jëriñee. xale bu mësërëgu da koy dëbbu. xale bu xam góor. du ko dëbbu. dëgg la gune gune góor gu xamagut gu xamagut jigéen eh, jigéen. du ko dëbbu. ñaar ñi nga xam ne xamaguñu dara ci àdduna ñooy dëbbu lii ma wax la alaaj dégg ak lan. dañuy wax naan nit ki bu fekkee ne bëgg na gudd fan. Mhm. nit ki bu fekkee ne bëgg na fee yàgg. Mhm. nay faju sëñ Cissé gis naa fi bouteille boo xamante nii mhm. boobu léegi maa ngi gis nga ciy jolu nit nag buy jaay lu baax <coughs> daf ko war a njëkkee ci euh, boppam. alaa dégg lii. Uh-huh. pour ngóora la. Uh-huh. lii sëyee ko tax a jóg. sëyee ko tax a jóg. ak defkatu yu bon yi lekk gu bon. Uh-huh. topp la. nga bëgg am ngóora goo xam ne bu neexoon ci yow manqué na nga bëgg mu remplir ba nga yëg na remplir na. Mhm. jëlal butéel bi di ko naan. da nga koy jollu wala nooy def. jollal rek di naan. boo xëyee naanal ba mu digg ba ngoonee nga mottali. toppal ma traitement bi fu sidit gu fasu ne dana tekkeeku te da nga sëy ba ilaa yow mi te kenn du la yàqalati. li ku ko am bu la neexee takk xale bu am 19 ans. am boo amoon benn jabar da nga wuti waat keneen ndax kenn dootul la téye. Mhm. garab gi boo koy jëfandikoo am benn jabar da nga wutiwaat beneen ndax benn dootu la kon garab gi dafa doon garab gu assuré goo xam ne mag ña moom lañ daan jëfandikoo nga gis nit koo xam ne day am juróom-ñeent fukki at te day wéy di ngénte loolu nag leneen ko daan may bant yi ñuy jëfandikoo la. suñ si des fois nit danaan dafa yor jaaro ba pare. Mm-hmm. ñu ne jaaro ku ko yor da nga yëkkati ko mais des fois nit yor jaaro pare di dellu ginnaaw loolu tamit lan la. jaaro ba baaxut. allahu baaxee te muy dox ci wërsëg. Mm-hmm. ndax wax naa la bërki démb bu ne. jaaru bii sëriñ si takk. day dox ci wërsëg. yaa ngi dégg. bii day dox ci wàllum mbooloo. muy xëcc ay nit. bii day dox ci wàllum kaaraange. bu yow nag li nga yore. mu baax dee ko jox jaam ñi. sëriñ si se lim takk ak li muy naan moom lay jox nit ñi ñëw ci moom te yaakaar ko. waaye du ci yëkkati lenn di ko téye. ngir bëgg-bëgg boppam li nga xam ne moom lay naan li muy takk li muy suuroo li muy raayoo moom lay jox jaam ñi ndax lii boo gisee ma def ko ci pot bi lii laay suuroo bu ma xëyee ndax saytaane fu ne lay fëqee ku fi ñëw nag te yore saytaane ñu yëkkati jox la te bu ñu la ko joxee nga raw say morom ba ilaa yu min si ñu ne ginaar da daan naaw te ceta ko wàcce cet nag bu rayul semmal ñu dugg ci at mu garaaw mhm. muy 2023 yàlla nañ ko fekkee te ko mag ña bu at dañ daan génn joxe ay tegtal ak i sarax daal uh-huh. sarax gi mboq la mboq mboq uh-huh. mboq mi nag uh-huh. day nekk ku ci man ku ko ci man na def ñetti kiloy mboqu yéene ko ngir sa njaboot boo ca paree nga seet suurub àjjuma naka dugub nga defat ci quarante et naka def ko yéene ko ngir njaboot gi boo ko defee at mi ni mu war a tàngee ni war a tàngee da nga bokk ca ña koy nettali mm-hmm. ndax at mi ñu dugg at mu tàng la. Ah. maa la wax lii man Serigne ci mu sëñ Babacar. 2023. dafa tàng jër. allahu akbar. 2023 tàng jër la def képp koo bëgg nag tàngoor woo nga mucc ca. Mm-hmm. sarax baa ngi nii. Mm-hmm. ñetti kilo yi mboq. waaw. nàkk ji nga defati quarante et un te ji nàkk yi dugub lay def nga def ko yéene ko sa bopp yéene ko njaboot gi suurub àjjuma nag lañ koy def ku ko ci def mucc ba ilaa yom basi ku ko ci def rek mucc suñ si tey yor nga sengoor nag sengoor pour bandi yi la ak wëyu yi mhm. yi nga xam ne boo xel liggéey kar nit ñi rek lañ fa ba xel mhm. tag ko sa ndigg mhm. bu la téeméeri nit tëmoon di la soqi bal du tàkk kon lii takkatil la bu la téeméeri nit tiimoon di la soqi bal du tàkk. buñ la jamoon paaka ku ko ngaa tëdd ci si man sëriñ si mu sëñ Babacar maa la ko wax. Senghor laa lay wax. buñ la tiimoon di la soqi bal du tàkk buñ la tiimoon di la jam paaka du dugg. la ilaha illallah. pour wuy wi nga xam ne duñ liggéey te bëgg tedd moo tax sëriñ si lii. ku ko ci am ba ne ko raat ci sa ndigale mucc nga ci saay saay sa wuy wi. alhamdulilah gàllaaj. Mhm. gàlloo. wallaay wallaay. ku ko ci def mucc ba ilaa yomit ba si saay saay dootu mën a ci yow dara. ak lan alaaj dégg. soxna ki nekkan ci Atlanta ne ma sëñ Cissé bu ko neexee bu mu julli bu mu woor. Mhm. jigéen ñi am jafe-jafe am doom di ñëw ci moom mu leen di ñaanal ñuy am doom loolu nag doy na jàmm yàlla. fekk beem bu taxaw. Uh-huh. bu ñu dee duwaañ def lépp. Mhm. jigéen a ko jox ci ñu ne woon ko doo am doom. yàlla mi dara tëwut mhm. jaarale ci man wa samaa'i wa taariq mhm. wa ma adraka ma taariq mhm. nañ mu sàqibu in kullu nafsin lama alayha haafizun falyanthuru linsaanu mimma xulliqa xulliqa min ma in daafiqin yaxruju min bayni sulbi wa taraib innahu ala raj'in la qadirun yawma tubla sarairu fa maalu min quwwati wala nasir ba ila axiri yàlla mi dogal dogal ci loxob sëriñ si sa doom juddu ca mu may ma oto beem bu bees taq bu kenn dawalagut. ma dawal ko ci sëriñ si. BMW la ci. BMW. dégg nga. man dama lay wax ne mbooleemi cadeau. cadeau nañ ma ko ci ñaan yàlla. ki la joxoon bi ci lan la ko joxe woon. bég kër ga naqari ñu koy wokkoo buy añ ñu koy ciibatu mu woo ma ma jox ko ci butéel yi. mu nangoo naan ba mu ko nangoo naan yàlla yee mi sidditam hmm. soxna sa kontaan mu jëndal ma téléphone yónnee ma. Hmm. façon tiraanga bu ne. muudu moodu yi triangal nañ ma ko. façon triangal junne sénégalais yi nekk ci dëkk bii si Sénégal triangal nañ ma ko adduna foo yaakaar. nit jëlee na fa triangal jox ma. dugg naa Maroc gii. benn nit jabet jàpp ko ba mën a tudd sëy. ma diir ba ma fa def. ma yëkkati chaque jour bu xëyee ma naan ko naanal ci garab yi avant ma fa béy ko muy sëyi. te jabet ko teewoon a sëyi. jabet dana téye ngóora. dégg nga. cité dana téye ngóor a émori dana téye ngóor waaye naar bi li ko téye woon moom jabet a ko jàppoon bi mu nangoo naan sama garab yii. may defee si affaire yi di ko jox muy naan. jabet da ko ba. sa 31 décembre président de la république dafa war a génn waxtaan ak askan wi wax ay bëgg-bëggam wax li nga xamante ni noonu la bëggee doxalee at mi. mais ci bis boobu ci la Sonko wootee concert boo xamante ni dañu tëgg ay ay bool. yàpp nga jàpp ne réew mi naru ñoo demaat Sénégal nañ ba yi ñuy def. Hmm? gars tëgg ci lu tax ñu koy tëgg lu leen naqari. mais Sonko moom la xale yi bëgg te moo ko diglee. Sonko moo ne waat nañ geen tëgg bool. waaw na ñëpp tëgg. man de Sonko. Uh-huh. li ma koy digal. Uh-huh. na toog ta ba ta woote gii muy woote naan nañ tëgg lii nañ def lii. dëgg ñuy woote. Hmm. amul benn njëriñ. Hmm. tëgguñ fi bool bu yàggul. lu mu fi jur. dara bekkoor. ak ñàkk ak deegu bëri rek. lay walay. kon tëgg mii ñuy tëgg nañ ko baax. Mm-hmm. Sonko na xam ne yàlla def na ko kilifa. dëgg la. gis nga nag Sénégal neexut a waxee. Mm-hmm. boo waxee ci nit ki yi dolli ko ñu ne nangam ak nangam waaye wooteeg tëggu bool gi amut benn njëriñ. gone Sonko yi am na ñoom dañuy saagawaat de. saagaay lan man boo ma saaga yaa koy yëg saaga ma. man dëgg ma gënal saaga. Mm-hmm. man koy saaga mag ñi fi ne man boo ma saaga loolu daf maa saf. wax nga dëgg de. daf maa saf. ngay saaga nañ ñëpp jël mag ñi teg leen ci penc mi di leen wax lu ne weer nga boo saaga Serigne si mi loolu da koo saf. yii ñuy def ban njëriñ la am. Mm-hmm. ban rendement la am réew mi ci liggéey la toll ak waxtaan lu baax. gis nga sonko na génne woyu yi ci ginnaawam. woyu yaa ngi koy yàqal ay nitam te nit ñi dañ koo bëgg. nit ku baax la amul benn problème. Mm-hmm. xale la boo xam ne réew mee ko ñor ëllëg ko ñor. Mm-hmm. woyu yi ci ginnaawam na ko génne ci ñoom. Mm-hmm. képp kum ci déggate ngay saaga. ta ngay saaga ci turam na la ba nga ko wuyu wala mu fexe ku la fa demal na ko sama tur yi boo koy tuddati. saaga yi boo koy tuddati na nga génn ci man. fu laay jaay Dakar. saaga pour lan. na jël responsabilité wax ak. jël ay responsabilité am kum ci dégg te ngay wax lu ñaaw mu génn la dëkk bi. lan mooy wax lu ñaaw Sonko dana soxla réew mu Alaaji Maalik ne. soxla réew mu Serigne Touba ne Baye Niass ne fa Makunta Ndiassane ne fa am ay saagakat yu ne ci ginnaaw ñu naan leen Sonko lañ jox réew mi ndax saagakat yi du fi am. Ah. du fi am looy saaga. allahu saaga lu maye. dara lu maye. dara. bu ngeen taxawoon tribunal ma ne maa saaga dootuma am dëgg. kilifa kenn du ko yàqal. Sonko ci yoonam la ne ñii saaga nanu ba saaga yi. Sonko mën naa am lu ne. lu ne mën na ko am ci réew mii. kon ñi koy yàqal nag ñii noonu noonu bi noonu privé nag daa am te Sonko daa ay noonu privé. képp koo gis mooy saaga ci internet bi noonu privé la. noon boo xam ne day ñëw jaxasoo ne Sonko la bëgg te xam ne ne réew mi bëggul lii ngir bañ Sonko am la muy am. mu taxaw ci ginnaaw Sonko di saaga. kon Sonko na wax ak ñoom. ba ñu wax ak ñoom dañ koy yàqal. Sonko maa la wax lii man Serigne Cissé mu sëñ karne saaga kat yi ci sa ginnaaw dàqal ñëpp. Hmm. bëgg bëgguñ parti bi. parti bi la yàqal ci pet moo tax ñuy taxaw di saaga. Hmm. yow ku baax nga doom ju ñu yar nga. jàng ba am li nga am ñëpp ne mosoo sàcc ay saagakat buñ ne sa ginaaw ne saaga ñëpp nañ ne poste ba nga ne woon mosoo faa sàcc dara kon bu nit ku yàqu de taxaw ci sa ginnaaw kuy saaga nag génn ca biti soo ko man Serigne Cissé maa la wax li ah na ko def dégg nga yow mosoo sàcc ñëpp nañ ne mosoo sàcc ah. mosoo sàcc Sonko ñu ne mosoo sàcc te ku mosu sàcc na wóolu nañ ko dénk réew mi saagakat yi ci sa kanam nañ jóg fii woy wuyu lañu yow lañ bëgg a yàqal te duma nangu ñu yàqal la te maa ngi bëgg a ah. Ah. te bu ma décider dinaa la fal de. allahu ma décider rek fal la. wuyu nañ génn ca biti waa xaru dox waa alhamdulilah wa wasalaamaaleykum jërë ngeen jëf. mbokk yi tey sëñ Cissé ci dimension bi mu nekk. beneen level la dimension graaw garaaw lu bon bëgguma ko ndax daf may merlo bëgguma lu bon te doomi jàmbur ju ñu yar ngay doomi làkkat ñu xam ne làkkat day yar doom ay saay saay bootu ji ginnaawam di saaga ngir bëgg ko yàqal lii ma métti février ah? procès bi ba beneen ba beneen wasalaamaaleykum jërë ngeen jëf comme que nee nga ba beneen du mën a laaj sax naan la jël bi nu muy demee euh, ndax euh, li jot a xew ci dëkk bi ku ne euh, gis na ko mbokk yi bu ñu ko toppee rek sëñ Cissé dana gën a kii moo tax numéro yaa ngi doon affiché nañ dagg émission foofu mbokk yi ñu doon topp di ñu suivre ci MPROD TV yàlla na ngeen am jàmm ci dara jey Mouhamadou Rasulullah